rabbil alamin alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kep ko xamanteni yaangi baxo ak suivre Pape Niang social ci chaîne bu mag bi di taxawu ñu wéré di TV yag ngeen koy dégg ma diko ko wax ci ay xéetu bax baxam yag ngeen ko dégg ma diko ko wax ci xéetu social yag ngeen ko dégg ma diko wax muy soxna Daba Gueye Touba belal Boutique tay nak maangi fi ci Touba belal Boutique ci ki nga xamante ni mooy soxna Daba Gueye social ma tuddee ko soxna Daba yaay yaayu triplé yi amul benn triplé boo xamante ni Pape Niang na kaawam te waa Belel waa Touba Belel boutique seen ñaq demu ci amul benn kaa boo xamante ni man Pape laa wax maa ngi koy tourné mu doon kaaw triplé te soxna Daba Gueye ak waa Touba Belel boutique seen ñaq demu ci ñun ñëpp ñoo ko ànd seetaanandoo dundandoo ko muy ki nga xamante ni moom mooy Seynabou saar moom mi nga xamante ni moo am ay triplé fële ca diwaanu Tëngéej ñàkk ba kanam soxna Daba woo ma ni ma sëñ papp ma ni ko waaw mu ni ma triplé yooyu maay seen yaay ñëwal boo ñëwee ma def na ma daan def jaar fa ma daan jaar utal triplé yi ay yére utal leen ay couche utal leen lépp loo xamante ni danañ ko yittewoo ma nekk fii ci tey ci Touba Belel boutique di sàkku ci képp koo xamante ni bëgg nga lu rafet bëgg nga lu baax bu ñu àggee ci biir dingeen xam soxna Daba Gueye ak waa Touba Belel Boutique ci lan la ñuy yëngu bis ni ki tey nag képp koo xamante ni yaa ngi may suivre boo jàddee jënd feneen man Pape Niang bàyyi naa la ñëwal lépp loo soxla ci wàllu tissu ci wàllu garniture lépp lu ngeen soxla ñëw leen fii ci Touba Belel Boutique wooteel rek commandé nga wax li nga bëgg ñu daal di taal oto yi indil la kenn sonnatul jaaxle jeex na ak Touba Belel Boutique waaye nañ àgg ci biir waay fii Adama bu fi duggee tey dina xam ni Touba Belel boutique dong ko yor. waa

jiwa teew nataal ku doon laajte Fall Ngoye ngi kii mooy soxna Daba Gueye mi nga xamante ni mooy soxna Daba Gueye social soxna Daba Gueye yaayu triple yi man Pape Niang social ma xam ci lu bëree bari soxna Daba géey day yabal ak njabootam taal otom indil ma ay couche indil ma ay meew indil ma ay yére indil ma ay moustiquaire lépp mu jëm ci triplé yi nga xamante ni seen yaay a ngi dund waaye rawatina triplé yi nga xamante ni seen wayjur dafa génn àdduna triplé yu mujj yi nga xamante ni moom lañ ci mujjee dund mooy ki nga xamante ni mooy na bu Sarr am doom le 31 décembre 2022 bii ñu génn ñàkk bakkanam ci anam bu doy waar tey mu bàyyi fi njaboot gu sew bàyyi kook ay mbokkam tey soxna Daba woo ma ni ma sëñ pap ma ne ko waaw mu ne ma tey nag damaa bëgg nga ñëw ma defati na ma daan def soxna Daba ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw Pape maa ngi leen di fay di leen nuyu di leen ziar yéen tamit. soxna Daba ndax bu ñu bëggee xam kan mooy soxna Daba Gueye nan lañ koy xame waaw <laughs> soxna Daba Gueye de benn jaamu yàlla la rek. ndeysaan <laughs> di taalibe Serigne Fallou. bëgg ko lool wax dëgg yàlla. ñu ñëw ci Touba Belel boutique lan mooy tuuba Belel butik Touba Belel butik ci lu muy yëngu ak lan mooy dëgg-dëgg daal mbir yi. waaw Touba Belel boutique euh, boutique boutique marché HLM 5. Mhm. Euh, derrière l'ancienne police. Touba Belel boutique les magasin bu mag la ñu jaay luy ak luy di jaay ay ay garniture. tissu super ak ay voile. etc. Lepp jaay tey lépp luy yokk taaru jigéen ak taaru góor moom la Touba Belel boutique di jaay hmm. ndax Touba beleel boutique lu muy jaayee daa uuteeg li ñeneen ñi di jaayee wala Touba Belel boutique fi la xéewal gi ne. waaw Touba Belel boutique moom fi la xéewal gi nekkee. macha allah xam nañ ci dara ñun. Hmm, parce Euh, prix yu abordable moom moo fi nekk. Mhm. waaw am euh, jasneer yi cherul. Mhm. jasneer bon qualité la ñuy jaay dara cheru fi super 100 yi cherul mbubu xew yi extra dara cheru fi garniture yi la même chose. tey ku ci bëggoon. ñu nekk bitim réew léeg-léeg ñuy jënd ay tissus ñu leen di jaay ay foo tissus wala ñu leen di nax est-ce que tey loolu jeexul ak Touba Belel boutique. si jeex na kay. ndax Touba Belel boutique moom partout dans le monde dañuy def ay publicité fépp. Mhm. ñëpp ñuy gis ñëpp ñuy woo di ñu wax seen bëgg-bëgg ñu taxaw ci. ak nim ak nim ko waree waaw da ngay gis ku nekk ba États-Unis France fu ne di ñu woo jasineer lañ bëgg dañ leen di jaay. envoyé leen ko des fois sax dañuy wax pour ñu ñawal leen ko. Mhm. ñu defaral leen lépp ba mu envoyé leen ko te bu demee bu yeggee ci ñoom dañuy kontaan trop. ndeysaan dañuy kontaan trop mooy kàddu yi nga xamante ni soxna Daba Gueye Touba Belel boutique ndax mën na ñoo xam ñi nga xamante ni ñoo nekk ci place bi kan ak kan ak kan la ba ku fi ñëw. Mhm. fàtte ci benn tur rek jàpp ci benn. waaw ndax Touba Belel boutique yamul rek dakaar ndeysaan am na Touba. Mhm. marché Ocass foofu ku ñuy wax Modou Tall moo fa nekk. ndeysaan Euh, am na tamit fii euh, marché HLM am na fi tamit beneen boutique ci rokku maabo bi mhm. ku ñuy wax Saliou moom moo fa nekk ak mhm. euh, Ngóone mais bu dee fii nag mooy place bu mag bi fii man maa fi nekk Daba géey ak mhm. sama borom kër Abdoulahad Silla ak Youssou Ndiim ak Daba Mbay Ndey Faatu mooy caissière bi ak Déthié ak Matar ak Ousmane. Mhm. waaw ñooñu nekk ñooñu ñëpp nekk ay ndaw. wax dëgg mhm. yàlla tey mu mel ni soxna Daba Gueye Touba Belel tey dafa créer li nga xamante ni moom mooy ay emploi ngir maanaam suqali ak a dundal réewum Sénégal soxna Daba nag yamut ci loolu social soxna Daba lu la booleeg social. waaw Pape man de <laughs> dama dama toog benn jour di seetaan TikTok ma daa gis nga dugal. nga dugal benn soxna soo xam ne saanam mi ngi am ñetti seex. Mhm. ay triplé moom saanam néeg bi mu nekkoon xaw a doy waa torop. Mhm. après ma gis nga dugal ko affaire bi ma koy xool touché ma. ndeysaan ma xool ko di jooy rek après ma capturé ko. Mhm. dugalaat ko TikTok. dugal ko en même temps statut. bi ma ko dugalee WhatsApp nag. ñu bari di ma woo naan ma. kii ndax danga koo xam ma ne leen xaw ma ko. ki koy def day def yàlla tax. di def lu bax rek te lu bax la ñepp di bëgg lu bax la ñepp di wër mhm. pour mën ko def ndax aduna bi jeex na ba pare jaamu yalla rek fi dess mhm. bi mako gisé man tamit nit ñi di ma wo di ma jox seen xaaliss mhm. man ma jël ko jënd ci ay bagage yu xalé sama borom kër tamit kenn du mom yëkëti jox ma né ma am ñi ñoom jar jappalé jox ma xaaliss takku né ma bolé la li ñi jox nga jënd ci ay bagage bi mako jënné ma woo telepon, téléphone. Mhm. wax ak yow après ci laa jox yuusu mais mu ëndi la ko ba sa kër nga yóbbu ko. wallaay ndeysaan. Euh, pour wax la ne la Pape àdduna bii. Mhm. maanaam dara jaratu fi dara. wallaay dëgg la dafa jeex ba pare. Mhm. liggéey jaamu yàlla rek a fi des. dëgg la te ci loolu lañ jaamu ak Serigne Touba. amu fi. wax ngay def yow dañ lay ñaanal rek. ken amul sa fay. yàlla rek am sa fay mangis maa ngi gis nga vidéo bi. Mhm. bu sëñ Fallou bi bi soxnaam si amee ñetti seex yi. dëgg la bi nga koy yóbbul 3 millions yi. Mhm. yaa ngi naan man de. bi mhm. may xëy di indi lii. dépense sax bàyyiwuma ko sama kër te ma ci ñaar dërëm. wax bobu daf ma touché torop wallahi ndaysan te heure buma ko dougalé mhm. ñi koy xool ñëpp dañ may wo mhm. nan ma ki de yalla rek ko mën fay mané ko mané len ki kenn amul fayam ku dul yalla amul fayam mhm. motax ñu ne luñu mën dañ ci japp ndaysan donte mënuñu lu bari wallahi yalla rek fi ne mais luñu mën dañ ci japp ngir dimbalé néew di doole yoy wallahi ndaysan defuñu ko pour ngistal defuñu ko pour sàmm ala defuñu ko pour dara yalla rek a tax ñuy def wallahi ndaysan ndax kenn amul fayu kenn suñu borom rek a am fay wallahi ndaysan wallaay kenn amul fay yàlla rek am fay mooy kàddu yu soxna Daba Gueye Touba Belel wax dëgg yàlla ndegam ñiy def lu bon ñoo am sañ-sañu di ko fësal di ko wone ba nit ñi di ko roy di def lu bon esamalaak ñiy def lu baax ñu mel ni soxna Daba Sénégal dañ leen soxla ñu mel ni soxna Daba ñun ñi nga xamante ne ñooy agent sur le terrain nekk homme de terrain dem ci cas bu nekk kaa bi nga xamante ni moom moo ko touché ba muy wax fi nga xamante ni fa la nekkoon am ñetti seex Amu dara lum leen dundale am ñetti seex tëddul sax ci lal bu baax am ñetti seex di leen coucher ak mbuusu toile ma yaakaar ni senegal vingt et siècle bi ñu na fe jeex te koñ boo dem gis fa ku sonn trop yaa gis ca wet ga ku am bay koy rombu di dem ci caaxaanukaay yi di yàqate alalam te du ko jariñ dara ngay gis ay nit di tabax ay immeuble yoo xamante ne leer na leen leeruk yàlla ni immeuble bi ñu fondement garantie bi du leen fi lan mote tee ñu jël alal jaamu ci yàlla sàkku ci ngërmande yàlla def ko comme ni nga xamante ni noonu la ko soxna Daba Gueye Touba Belel boutique gi defee ñun de on est fier kontaan nañ bu baax ci def wax dëgg yàlla di fasil ab liggéeyam ndax kat ki bu liggéey bi demee ca kanam rek wax dëgg yàlla néew ji doole yi léegi ñu regg kon soxna Daba Gueye képp koo xamante ni bëgg naa ñëw fii fan la mën a jaar yan numéro téléphone moom lañuy ñuy ci bande écran bi ngir maanaam bëgg ñi bëgg lu baax bari nañ bis ni ki tey ku fi romb soxna Daba Gueye dem feneen man pam Niang baalu ma la yan numéro la. <laughs> Pape waaw <laughs> boo bëggee ñëw Touba Belel boutique. marché HLM 5 la. Euh, derrière l'ancienne police boo ñëwee foofu. Euh, boo fi boo boo xamul boo yegsee ba ci police bu njëkk bi rek da ngay wootee ci numéro bi euh, sama numéro 77 696 12 64 boo woowee di nga ma jot wala nga woote ci numéro baylaat 77 649 07 68 boo wootee ci numéro yooyu nañ la jël si. numéro yaa ngi noonu ci bànn écran bi wax dëgg yàlla képp koo xamante ni daal bëgg nga lu baax. Dakar xat na embouteillage yi metti na soxna Daba mi ngeeg WhatsApp woo leen ko wax ko tissu bi ngeen bëgg mu tànnal leen bi leen gënal yónnee leen foto yi ngeen toog rek fay yónnee xaalis livreur yi indil leen ko tey dem Dakar yomb jafeetul lu waaye soxla rek toogal sur place mu fekk la fa fii nag Touba Belel bitik àjjana la boo nee kafe café ñëw góor kàttan askanu Sénégal ràññeeku si mim réew mu baax lool ci góor gu tële ba góor gu gaaw a daanu résultat bi di joni joni gaaw lool ba mel di melax ku si bëgg leer mën nga ñëw contacter si numéro téléphone yii ngeen di gis